màggalu ko demuk borom daarul moxti ndar yóbbu woon lettre ba ca buro gouverneur ki koy taxaw di Serigne bay Guèye liggéeyaa ko di fàttali bis bi nga xamante ni mooy sunu bis ku nuy ku nuy fay itam ci nga bi Serigne Touba yónni woon borom daarul moxti ndar ci gouverneur ren di ñaar fukkeelu màggal gi ak ñeent ñu tudde ko Serigne Moustapha war a doon dimanche ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru décembre wi nu du ci woo bokki jullit yi bokki taalibe yi yi am ji jàmm yi bàyyiwunu kenn kon bokki bis baa ngoog di amee ca daarul moxti nañ ko bokk waajal